من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له إلى يوم القيامة الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى summa salaatu wa salaamu ala ashrafi alaalamin sayyidi alawalina wal axirin nabiyu rahma alladi arsalahu llahu rahmatan lilaalamin sayyidina wa xabibina wa mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim amma baadu ayuha almushahiduna alkiram fi télévision sunu label tv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 jox leen loxob xal bi santati sunu boroom minu ko mayaat julli selmal ci sangu àdduna ak laaxira sayyidul wujudi sallallahu alayhi wa sallam nuyu leen ziyaar leen ndokkeel leen ñaan yàlla même jàmm am yërmande am barke yàlla na yàlla bokk ko defal bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi bi ko maa ngi wax ni eh, bu charte dajee ci nit te yonent bi nee na yitteem mooy na dem aji màkk charte nag wax naa ne bi ci compliqué mooy bu mujj bi al istitaaw mën mën parce que yàlla moo wax ni dem leen defi ko mais liman istataa ilayhi sabila mën gi ta cee bokk mën googu nag ci la lépp dugg ci la wér gi yaram wi dugg ci la wërsëg wi dugg ci la wér léegi dugg yooyu yëpp daf ci tàbbi mbokk yi pour nga mën a dem waaye nag mu mujjeeg yéen démb wax leen ni ku ca fobu ku ca xel ne ku ca sa xol ne yégal ni def nga ci sa xol fu yonent bi bëggoon bi muy nekk a war ma wax la ni fu saxaaba yi bëggoon bi ñuy nekk a Munawwar ba sax nag wax naa la démb na la yonent bi bi mu amee image yu yàlla ne ko di nga yegg ca Kaaba ga parce que boobu génn nañ leen Makka yéefari Makka muy Xurayshi yéefar ya ca nekk tax am ni gëmuñu lislaam dàq nañu waa lislaam ci biir Makka gaa yi nekk na yàgg fa amatuñu accès ci kaaba gi te mbokk yu jullit koo xañ kaaba gi xañ nga ko li gën a màgg ci kanamam ci wàllu yàlla moo tax wax ko fii benn bis ci émission ma ne lu toll ni kaabatallahil xaram ni Moussa ku janoog moom est-ce que war ngaa tal ay sinap waroo tal sinap sa waay est-ce que xam nañ lan la kaaba gi représenté ci kaw suuf moo tax saxaabatul kiram dañ daan tëdd guddi na war seen xel yépp ñibbi ci kaaba gi mbokk yi benn guddi rek yonent bi tëdd yàlla woon ko ne ko xam naa ni ñépp fi mu toll nii seen xol ci kaaba gi la ne te xañ nañ leen ko mais di ngeen laqad sadaqa allahu rasulahu ruya bilxaq ci suratu fatih la tadxulanna masjid alxaram inchaa allahu aminina muxalliqina ru'usuhum wa muqassirin la taxaafuuna fa alima ma lam taalamu fa jacala min duni dalika fatxan qariba mbokk yi yonent bi yeew rek saxaaba yi toog moom mu ne ndaa nañu waaj sama borom de nee na ma daañu dugg màkkatal mukaram bu soobee yàlla mbokk yi ñu wàcc seen umra moom nga dégg sulh Hudaybiya bi amoon foofu la woon ci voyage boobu la woon moo tax suuratu fatxi du fatxu mooy fi yàlla ubbee màkka déedéet sulxu Xudaybiya moo am histoire woowu la ci yàllay nettali ci suuratu fatxi waaye dugguñu moo tax fatxan xariban nga dégg fatxan xariban boobu nga dégg ci aaya wi mooy xaybar gi ñu ubbi bi ñu tourné ñu wàññi leen xaybar lañu ñu ubbi loolooy fatxan xariban ñu dem ubbil leen xaybar muy ubbeeku gu yaatu goo xam ne teraanga ja ñu am ca xaybar masu joo dem xare am ko moo tax loolooy fatxan xariban gi fabu nañu jëm màkk nii ujaaju yi waajee fabu ñoom ñépp jëm màkk bi ñu ñëwee ba xoday bi ñu ñu kampe diggante xoday bi yu ak mu mukaram vingt deux kilomètres nabil moustapha campé ànd lu bari ci ay sahabatul kiram ñu ñëw samp seen xayma yi dugg ci néeg yi campé bi yu yonente bee nga ànd ak ummu salamata benn ci soxnaam yi ummu salamata la bokkal xaymaam moom rasulullahi ba yonte la muhammad armale ci zu xulayfa ba Moustapha armale ne nag dañu war a dem duggi màkkatal mukaram ci la jékki-jékki rek kenn ci saxaaba yi yegsi ci moom moom nag Makka la nekkoon daw si fekk yonent bi fu mu campé ci xeebar ñu koy wax Bushar ibnu Sufyan al-Kaabi moo ñëw ne ko am na lu xew de waa Makka nee ma ñu def taxawaayi yor ay gëléem yoo xam ni gëléem yu mën a yàgg ci àll lañ boole koo ki ngànnaay ñee daa mel ne dañoo foog ne da ngaa xeex si xeex lañ fa yéene de nga bi ne ko waxee man ñëwuma pour xeex boobu ñoom naar yi yonent bi ñu mu àndal ñëpp amul kenn ko yor ngànnaay lu dul paaka te naar moom lu mu ñàkk ngànnaay ñàkk ngànnaay lu mu dox dox paaka moom dana ko yoraale waaye kenn yoru ci ngànnaay woowu wane ne dañoo xeex si ci la yonent ne kan mooy dem dajeeg ñoom balaa ñuy ñëw waxtaan ak ñoom won leen ni man ñëwuma pour xeex ñu ne ah, Omar na dem yeneen bi ne Omar man <laughs> Omar de bu demee léegi ñu xeex yeneen bi ne bàyyi leen ma yebal bu bun Affan mi nga xam ni cëral nañ ko ñoom wekk nañ ko ñoom respecté nañ ko bàyyi nañ ko xel ci la yonent bi yebal Ousmane ñu toog diir dégguñu nouvelle ci Ousmane yëguñu ci lu Ousmane ne ba tàkkusaan ngoon jot lenn ci ay naafiq di ruumandaat ci biir naan Ousmane rey nañu ko yonent bi dégg loolu yonent bi ne ah Ousmane jihaat na bu dee Ousmane rey nañu ko de kon jeex na jaayante leen ñu dem ànd dem ak doole ci biir màkkatal mu karam xeexi ndax usmaan nag ku ko rey ñu nit war nañ fee mën a des nag daal di tàllal loxoom moom rasulullahi sahabatul kiram yépp teg seeni loxo jaayanteeg moom yonent bi teg loxoom càmmoñam ne Ousmane loxoom a ngoog kaay la ñu dugg génne ji Ousmane ñu des fi noon rek ci la seen kuy rëppatal naaru góoram di ñëw ndekete Quraysh ñoo yebal waa ju ñuy wax Suwaylu bun Amri Suwaylu bun Amrin egsi bi mu yegsee yonent bi recevoir ko ak sahaaba yi noonu tuuti Ousmane yegsi ne waaw kay sooy la lañ yebal pour ñu ñëw ñu waxtaan ñu waxtaan ak moom Suwaylu wax li ko kilifa yo yónni te mooy nag du ngeen dugg ren da ngeen di wàññeeku waxtaan la ñu waxtaan ca gàttal moom daal fii ba keroog ñu suñu pacte gi ñu limante ñun ak yéen ku bàyyi koo ci yéen ñëw ci ñun dañuy téye ku bàyyi koo ci ñun ñëw ci yéen dangeen di da ngeen koy bàyyi mu ñëwaat wax seeni wax daal ca na nga ko jàngee ci gàttal waxtuwee ba ko dul may waaye daal yonent bi d'accord ak ñoom am lenn ci saxaaba yi nag loo xam ni mbir mi neexul ci seen xol yonent bi joxe ndigal na nañ leen wàññeeku saxaaba yi diig diigal ñenn ñi di ñaxtu ñenn ñu toog seen néeg di jooy ci seen fa fa fa fa ñu campé ñenn ñu jël seen chaise dem na mer ni ko mer caractère yeneen bi dugg daal ne ummu salamata ah tiit naa ci saxaaba yi alkande yàlla daanu seen kawde de parce que santaane naa te kenn deful mbokk yi fekk na yonent bi ci zul xulayfa armal na ba noppi te aj màkka ku xasa armal li mën a dindi sa armal mooy faaw nga wër kaaba gi daw safaak marwa rek moo mën a tax nga dindi armal gi su looloo amul aa kon nag faaw nga rey hadiyu doogo mën a dindi armal gi nañ ko jàngee ci alquran fa man fa man fa man iqtasara fal hadiyu am na ko alquran doon jàngale maa ngi jéglu ci aaya bi ñëwul waaye alquran nee na képp koo xamante nii gàllankooru nga ci lala war ca aj ba mënoo ko def rayal gàtt mbokk yi yonent bi nag bi mu ko waxee ummu salamata ah ummu salamata ne ko déedéet déedéet balaa alkadi ñëw kay jaru ko yow kay defar rek defar rek li nga leen bëgg a sant tawal leen ginnaaw yonent bi daal di wot ray hadiyoom daal di wone ginnaaw saxaaba yëpp daal di jub ku ci nekk def la yonent bi def ànd ak moom bi ñu génnee rek yàlla ne Muhammad léegi nag xaybar ngeen di jàdd la leen teewoon danaa ko réglé te moon ngeen ubbi xaybar mbokk yi fatxun qari gi mooy xaybar gi nag mbokk yi xeerooy googu foofu la ñu dem jàdd tabar fa kallaa kampe fa mu nekk tata woo xam ni kenn mënu ci woon dara ay at ñu problème ngir lan ña fa nekk doole ja ñu am ak na leen àdduna ragale seen ponkal moomu di mërhëm nga xam ni kenn ñemewu ko woon mbokk yi ci xare woowu la ko jàmbaar ga rey di Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhu Ali moo ko rey bu leen fàtte Alioune wànnent dawoon na ko ci yoon wa waaye yonent bi nee na ba ñu ko jéemee jéem ñoom ñëpp kenn mënul yonent bi dane na ngeen yëg ni bu subaa danaa yebal ku bëgg yàlla ku yàlla bëgg koo koy xëy dana ubbi xaybar insha allahu rabbi bu subaa nee nañ keroog bi mu ko waxee sax Umar mun Xattaab fajaru na ñëw ne xam naa du ñàkk yonent bi man lay waxal boog waaye yonent bi wax ko dara bi yonent bi ne ana Alioune ñu ne ko Alioune dafa wànnent Umar garaawal wànnent ba ne ko wànnent wànnent bu garaaw la def yonent bi ne waaye woo leen ko Alioune moo war a ubbi xeebar keroog ba Alioune ñëwee yonent bi jàng la muy jàng ci bët laal ko ca bët ya leer nañ yonent bi jox Alioune ne ko xaybar gi yaa ko war a ubbi keroog la Alioune jiite sahabatul kiram ubbi xaybar ray ka nga xam ne mooy mër hëb de seen ponkal ma nga xam ne keroog la ko Alioune joggi daaneel ci suuf ray ko Alioune keroog ca la ñu amee fatxun fatxan qariban muy ubbeeku goo xam ni gu jege la soriwul foofu rek ci wetu Màkka fala la xaybar ne ñu daal di ubbi xaybar taraanga ya topp jullit ña taraanga ya topp sahabatul kiram ñu dem teg ca six mois ca la ñu delsiwaat ca màkkatal mu karam yonent bi doog a dugg màkka ba ñuy ñibbi nag ñenn ñi naan yonent bi moo ne woon daañu dugg màkka Aboubacar ne leen déedéet def leen ndànk yonent bi mu ne dafay wax daf bi muy wax daf nañu daañu dugg màkka mais inchaa allahu aminina muhalliqiina ru'usuhum wa muqassirina rasulullahi loolu la ñu waxoon mbokk yi kon nag dem nañu delsiwaat nañu mbokk yi ci la ñu doog a dugg màkka mbokk yi delsiwaat nañu waaye dugg màkkatal mu karam woowu maag yéen damay teg baaraam ndax waxtu wi dab na moom bu yàgg moo tax may njëkkante waxtu wi waaye mbokk mi histoire wa sax jeexul waaye ma ñaan sama borom yàlla defal ñu tawféex ba ñuy dem dugg ci jàmm dellusiwaat ci jàmm fekkat fi ñëpp ci jàmm màkkatal mu karaama ngoog mbokk yi jullit bu ne sa mébét mooy dem fa yal na yàlla yóbbu ñëpp nu ànd def la nga xam ni mooy ponk boo xam ni ponk bu am doole la ci lislaam ndax lislaam moom su waxee ponk rek xam nga ne am na doole te nag aj gu yàlla nangu rasul nee na aljana mooy payor ka mbokk yi aljana segam mooy payor bi nañu ñaan sunu borom ñun ñëpp ñu def ko ca na ko yàlla bëggee ni ko yàlla bëggee mooy charti daje waaye it arkaan daje waaye it yi daje waaye it nag yi nga xam ni moom mooy ponk yi la war a may soo demee Makka soo ko defee ñu nangu sa aj ponk yooyu it nga fexe andi ko ni jaadoo lu ñàkk maag yéen ci waxtaan wi di ñëw daañu ànd lan mooy ponk aj yan ponk mooy daje ci nit su ko defee rek yëg ni man aj na aj gi yàlla d'accord ma ñaan sama borom suñ ko ajee yal na ko yàlla nangu bi jaayi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam gërëmaat nañu ñëpp santaat ñëpp mbokk yi waxtu wi def na ma bu yàgg xanaa rek teg baaraam ñaan sunu borom yàlla mayat ñu daje ma ak yéen suba gërëm sunu directeur Hadj Makhtar Sylla ak mbooleem personnel yi mu ko bokkal yépp ñu koy jàppale ci liggéey bi ma teg ko ci loxol soxna Aida mu yóbbaale ñëpp géew sama jigéen ajaratu yaa xari Diouf maa ngi lay waat di la ziyaarawaat di la ndokkeelaat ñaan sama borom yàlla na yàlla dolli sutura wi xéwal wi bi jaay Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ak mbooleem ñu baax ñu tedd ñu ngi koy àndal ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ida aradtum salaamata al warihatal mu'minin mbokk yi suba lay doon man ak yéen wa man adallu mimman yad'u min